particulier kenn ku nekk mën nga jóg donc ne laaj laaj gox laaj gox nag damay jàpp ne toujours gox bu demee nii ba laaj ko fi mu nekk neex na neex naa laaj parce que nag euh, ku fi ñëwoon 2002 ak nga ñëw fi tey nga xam ne dégg na ay fondement yu dëgër ba xam ne fi mu nekk nii euh, jot ko ku nekk mbëgg na koo jot parce que neex naa pousse nekk nii waaye nag jël pour jot rek dafa mbir mi dafa nekkul lool mbir mi dafa nekk ne euh, li ñuy tabax dëgër na ca fiñ ñu ne war nañ ko faa gën a encore mën a yóbbu sori na moo tax ñu ne donc nañ woote nañ woote Benno Bokk Yaakaar parce que ñun kat 2014 bi ñuy fal APR APR lañ demoon dañ ñi fal en tant que APR ñu jàkkaarloo parti yëpp donc gagné leen waaye bañ leen gagné ba pare dañ leen oo ñun ñëpp na leen benn bokk yaakaar moom lañ wax ca kaw ñun dañ koy wéyal fii ci suuf mu ànd ak ñoom di bokk di liggéey ba tey jii kon dama jàpp ne sax bilan bi man ak ñoom a ko man ak ñoom a bokk. Ah, am naa comme ni ma ko waxee ci tubaab sànq eh, ñun am nañ lu ñu fi jeexital am nañ vision déjà parce que dañu wax ne ñun dañoo bëgg commune Taïba Niassène nekk modèle. de communes émergentes à l'horizon 2020.